ku jug rek ne dañ ma complot ku jug boo defee sa juumte ba pare nga ne waa pouvoir bi la waaw waa pouvoir bi xanaa du ñu nit waa pouvoir bi xanaa bokkuñu Sénégal mais surtout waa pouvoir bi xanaa bëgguñu lu baax pour suñu njaboot ndax dinañu xëy suba ba ngoon jot naan suñu doom yi dem leen mag ndax dinañu xëy mu wóor ne ñi ñuy xeexal ñoo ñuy aar ndax li fi ci yeneen réew yëpp gis nañ kon dañu war a taxaw dañu war a doon benn say mais surtout dañu war a dañu war a ràññee ñi ñuy tànn dañu war a ràññee ñi ñuy jiital moo tax docteur Soxna Ndoumbe Diop sa mouvement bii na nga xam ne bu ñu amoon fukki loxo danañu aab bi yeneen fukki loxo dugal ci suñu loxo